kon de mbokk jullit yi ñu leen di nuyu di leen sant gannaaw di nga sante suñu borom di sell bi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ñu ko daan defe rek ni ñu ko aada woo woon ñu dajee bala ñu teqli ko sànni ay kàddu ndax mu jëriñ ñu bañ a neenal jataay bi ñu ngi koy faral di waxe rek fàttali la fa dakri na faatu zikra fa zakru man yaxsha fa inna zikra tanfaul muminina jataay bu mu doon bërëb ba nit ña toogoon daje fa dañuy seede ëllëg ñu moyu nag jataay bu neen mooy jataay boo xam ne ëllëg du ñu seedeel dara lu ñu jox tuyaaba wala lu ñuy fagal lor
ànd leen akub dégloo ànd leen akub dégloo
kàddu yi ñu ci bëgg a sànni ci ñeenti masala la benn bi bu ci njëkk mooy julli mbiri julli bi ci tegu mbiri miraas bi ci tegu mbiru li ñuy wax fase bi ci tegu mooy wax ñeent yooyu bu benn bu ci nekk ñu sànni ci ay kàddu du kàddu yoo xam ne am njàngale la ndax jàngale xaju fi waaye nag wax lu ci nekk na mu toll ak xataram dañu du ci bàyyi xel di ko jéem a jeex xàqam suñu kem kàttan julli ñoo jiitu julli lañu war di jiital ndax yomal xeem moom la ñuy njëkk a laaj moom la ñuy njëkk a seet moom la ñuy njëkk a toppatoo julli nag gannaaw jëmm ji buy julli benn mu wax ko ci lamiñam wala mu yéene ko yani ñu ne inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana min al mushrikina fab naa sama jëmm jëpp ak li ci nekk lépp jëmale ko ci yàlla yàgg nañ koo wax mooy moomatoo lenn ci sa bopp lépp jox nga ko yàlla muy wëlëre woo fasanteeg suñu borom lu ca manque bi la ko laaj ëllëg ci julli su nga nee allahu akbar su nga nee ne asalaamaaleykum moomatoo ci dara ci lu jëm ci àdduna di say bët di say nopp di say loxo di say tànk di sa lenn wax nga ne lépp jëmale nga ko ci yàlla mu di la gis di la déglu malaayka yi di la seede ñuy xam ba ci sa xalaati xol li nga fasante woon lu ca manqué da nga ko gis ëllëg kooku nag ci ki nga xam ne am na farlu tàmmal boppam ba waxtu jotee mu jàpp bu mënee jàpp bu yaramam dee bañ ndox mu tiim fas yéenee jox waxtu wi kookoo tax ñuy wax waaye ci sàggan nag ba di ko faat di ko fay wala mu bañ koo fay mbiram moom moo gën a diis ndax julli dafa diis diisaay goo xam ne waral nañ koy waxtaane dafa boole jaamu yàlla yépp koor a ngi ci biir jàng alxuraan a ngi ci biir salaatu ala nabi ngi ci biir sikkarturu yàlla ngi ci biir teewloo ngi ci biir lépp a ngi ci biir moo tax muy jaamu gi gën a mag ci jaamu yi képp ku ko matal te lépp baax ndax genn julli gu ñu nangu ku ko def ci sa dund texe bari na nag julli ñuy julli ba àggale te duñ ca am dara bu yemee ci ñàkk am dara ñu bañ laa fay tax muy jàmm waaye nag dañ la koy topp te danga ko fay julli ku ko wacc wala nga def ko definu bon ëllëg yowmal xiyaam danga ko fay ci bërëb bu tàng bu metti bu naqari bu xat bu lëndëm bu xeeñ danga ko fay na julli ya toll julli gu si ne danga ko julli yéefar yi gëmul lislaam ba duñ julli mukkit daañu julli ji bu keroogee ndax bis buñ njëkkee ne yawma yukshafu an saaqin wa yud'awna ila sujudi fala yastati'una ñi daawul jaar ci julli ñoom bis bu suñ borom ne sujjóot leen seen yaram yëpp day mel ne yet dara du banku dara du sëgg duñ mën a sujjóot dina ko metti nag mettit woo xam ne dara ci àdduna mënu la koo misaal waaye nuñ mën a def day daañu julli bu ñu mënula julli foofu daañu leen ko topp ba ñu dugg biir safara julli fa daañu julli ci li ñuy wax gëm mooy suuf su tàng ba xonq doo mën a sujjóot sa sujjóot mooy suuf si tàngaay bi wan na la ba sa jë këpp ci suuf fi ngay war a rukkoo mu gëkkale bi ci sa ndigg fi ngay war a taxawe da ngay taxaw sa yuur gi di xet ndax tàngaayu sa tànk yooyu suñ ko teg di julli moom lu rëy rëy rëy la lu foor la ci suñ borom yi ñu digle yépp ci lislaam malaayika bi mooy ñëw muy jibril wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye julli ba ko suñ borom joxe yonente bi jibril mënu faa àgg àggu ko julli moom ku koy faat dugal nga sa bopp ci loo xam ne lu mu doon yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam dafa mës a toog benn bis benn jigéen ñëw ne ko man de dama alku te defoon ne mën nga maa xettali ma bëgg nga xettali ma mu ne ko yow lu la alak mu ne ko dama sëy ba noppi dem am doom ci lu dul yoon yonent yàlla Moussa tiit daw génn néeg bi ne ko taxawal man ma daw balaa safara wàcce asamaan lakkaale ma dal dem moom tuub dellu ci suñu borom suñu borom yedd ko ni ko lu tax nga daw kooku xanaa xamuloon lim def bàyyi jullee ko gën a xaraam gën koo diis bàyyi genn julli bi mu dellu see di topp sa mbirum jigéen ja daf fekk mu faat waxtu fekk saan fekk seytaane topp na ko ñaar fukki at mënu fexe ba def loo ko lu bon waaye ba mu faatee waxtu fekk saan wa la ko seytaane melal mënal loolu dugg ko mbiri julli diis na diis yoo xam ne li ci nekk bari na bari goo xam ne waxtu wi mayewu ko ñu jógee si julli dem ne woon ñu teg ci miraas miraas mooy ki fi jóge ñu war a toppatoo gannaawam toppatoo gannaawam ci li mu bàyyi moomatu ko ku ko moom ñi mu bàyyi fekkee ne sabab lu na ko ci lu lew ba bàyyi ko fa dana am tuyaaba ju rëy lépp lu mu ci yéene woon a def te defu ko daañu ko bindal loola ci tuyaaba fekkente ne ci lu lewul la ko am ñam ko bàyyeel ñu lekk ko wala ñu terloo ko lu xaram loolu nekk ci seen biir du ñu ñaan ñaan gu nangu du ñu julli julli gu nangu daañu ko layoog moom yemal xiyaam miraas nag suñ borom moo ko séddaleel boppam moo tëraleel boppam ñu bari ci jamono ji dañuy ñëw rek séddale fab li kii jox lii fab kii jox lii fab kii jox lii te ku ne suñ borom dafa sàmm sa tudd cër ba nga am muy lu ñu war a jàng di arab yi wax mimma taamu bihil balwa masala sàngam dafay faral di am nit ñi di ci juum ñu ne mimma taamu bihil balwa moo bokk na ci masala yi nga xam ne balaa bi ci suñu borom def dafa matale doomu aadama bi nga xam ne dañ ne sëriñ la jàng na dafa war a miraas ñu di ko woo muy miraas dugal nañ ko ci lu rëy ndax alali jirim suñ borom daf cee tëkkoo tëkku bu metti inna alladina yaakuluna amwaala alyatama zulman innama yaakuluna fi butunihim naaran wa sayaslawna sairan ñi nga xam ne dañuy lekk alali jirim ci tooñ safara rek la ñu lekk seen biir te daañu daañu jaari safara daañu dugg safara yowmal qiyaam alali jirim diis na diis goo xam ne ki koy miraas li nga xam ne moo siiw ci réew mi ñu naan dërëm tànk daganul su ko lekk lekk nga riba fi ngay xamee ne dërëm tànk du yoon mën ngaa miraas miraas mu gàtt nit ki gaañu am benn doom bu góor ak bu jigéen amul ndey amul baay bàyyi téeméeri million nga dal di ne góor ñaar jigéen benn góor gi nga jox ko ñaari cër jox jigéen benn mu yomb ba dee doo fa yendu doo fa fanaan doo fa naaje bu ñu seetee dërëm tànk bi muy xaalis bu bari ñu jox la ko nga yóbbu yóbbu nga riba yóbbu nga alali musiba yóbbu nga sobe yóbbu nga safara nit ki xaqam xaqam la sañ a laaj bi nga bàyyee say soxla toppatoo too ko ngir ñëw sa mbokkum jullit li jëm ci ci faatu gannaawam coono ba nga fa am rek lañ la war a jox moom lañ la ameel waaye yenn yi du yoon ku ragal yàlla te xalaat ëllëg doo ko def sëñ si dañu war a jàng miraas bu baax ba mu mokk xam ne buñ ñëwee di séddale miraas dis bi mu dis tax na ak bépp miraas moo xam ne maama nga ca ca ñey doon jafe na jafe goo xam ne borom téere yi dañu ne képp ku bëgg a xuus ci xuri safara yowmal xiyaam dil séddale maam alal joo xam ne maama nga ca doon bu maam nekk ndax jafe gi mu jafe kon nag dafa laaj jàng njàng mu mokk mu leer mu wér mu soog koy def waaye séddale rek benn fiftin boo xam ne xañ nga ko ci ki ko moomoon moo xam yaa ko lekk wala da nga koo jox keneen ci xam ko faral ko wala ñàkk a xam sa ñàkk xam tax nga jox kenn lu moomul loola le mel na ne yow yaa ko lekk te ëllëg da nga ko fay miraas du caaxaan lu mat a topp toola ci fi jóge bàyyi fi alal xam ne lu mu fi bàyyi lépp te fàgg woon ko moo xam mu lekk ko wala mu jëriñoo ko wala jëriñoowu ko dafa dem bàyyi ko fi wàcce ko ñeneen lépp lañ koy laaj ëllëg lépp lay lijjanti dana lijjanti lépp ëllëg ñam ko fi bàyyeel buñ ca jaamoo yàlla ñoo ko moom buñ ca moyee yow mi ko fi bàyyi da nga am ca bàkkaar ba ndax yaa liñ ko may bu dul woon ak la nga fa bàyyi duñ ko mën waaye nag sellal moom baax na nit ki gannaaw jullit dafa war a sellal li muy am sellal li muy lekk sellal li muy sol sellal fi muy dëkk mooy tax bu jullee ñu nangu ko buñ jógee ci julli wax ci miraas tuuti ñu ñoo xam ne noonu ko gàtt lañ ndax jamono bi mënu ko dul may dama cee tegoon mbirum fase fase lu mat di seet la ñaare kii fase néew na bu mu nekkul ci mer te ki mer day topp xolam ki mu gën a tooñ nag mooy jàngkat bi mu dem ci moom di ko laaj fase bi ndax mu daganal ko ndax mën nañoo delluwaat wala mënuñoo delluwaat li tax mu tooñ ko mooy bu demee du ko wax nam fase woon du ko ko wax te war ngaa wax baat ya nga ko fase woon bu dee da ngaa tudd fase bu dee da ngaa tudd may sa baat bu dee da ngaa tudd baal naa la wala loo mën a tudd rek boo ñëwee doo ko nettali mu daal di àtte àtte ci erreur fase ci boppam ak baat boo mën a wax boo doon fase naa la junni fase wala fase naa la juróom-ñaar wala fase naa la ñetti fase wala fase naa la benn fase bu mu mën a doon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jamono Seydina Abubakar yëpp benn fase rek lañ koy compter ni nga xamee ne bu ñuy maye sëy kii ñaan dana tari ñetti yoon fatiha ñaan kii maye tari ñetti yoon fatiha maye ñu soog a xutba ñetti yoon ñooñu mooy ñetti buum ñoo xam ne mooy buumu sëy bis boo fasee benn benn bi dagg na boo fasee benn waaye na nga xam na ngay fasee fase ay xeeti fase am fase ahlu sunna ci fasum sunna dafa am ak fasem bidaa fasem bidaa yi du tee dana dog waaye fasem sunna mooy nit ki bi mu waree fase dafa bàyyi ba kooku laab ba mu laab te diggaale wala moom dara ci laab gi di yéene benn fase ne ko fase naa la wax baatu fase la ñu xam waaye may naa la sa baat leerul fase naa la boo ko waxee muy benn boobu fekk idda ji jeexul du laaj kat mayewaat sax du ca war jubale jubale rek lay doon ndax moom dañuy wax fa seen fayli da ngi leen di jubalewaat boo delloo continuer di wéy ba seytaane dikkati ba ngay fase nga faseeti na nga fasewoon muy ñaari fase ba tey bu idda ji jeexul laajul mayewaat sax delloowaat rek maanaam jubalewaat rek la waaye ñaari fase nga boo faseetee beneen yoon nag muy ñett léegi baax na ji daf cay war bi nga xamee ne nag sallallahu alayhi wa sallam bi ñu fi nekkee ak sayyidina Abubakar yëpp noo mën a fasee rek benn fase dañ koy jàppee gannaaw suñu borom daf ci def yërmande ba ba da ngay fase ñett yoon ñu soog ci ndax bëgg rek ngay delloo si sa xel nit ñi di faseendoo benn yoon naan fase naa la ñetti fase fase naa la juróom-ñaari fase fase naa la nangam fase sayyidina Omar nag daal di dogal na léegi ku waxati loolu ñetti fase lañ koy jàppee. waaye li ko jiitu lépp baat boo mën a wax rek benn fase lay doon waaye bés ko Sidna Omar tere ba mu dogalee loolu ba tey amirul muminin nga xam ne ñu jullit ñëpp war nañu wéy ci ay waawam wala nga xam ne boog duñu leneen la ñu doon lu dul jullit ci lañ sosa ba téere yi indi baat yoo xam ne ku ko wax ñetti fase lañ koy jàppee fasem bi daa mooy nga fase nit ki xamuloo laap na wala mu ngi ci reegal wala nga mboole ñetti fase ci benn baat wala laab gi mu laab ci su reegal ngeen diggaale ci dara te yëpp façon bidaa la façon yi nga xam ne ñett la façon baa in façon batta ak summikoo ak zihaar zihaar moom du fase waaye façon summikoo fase la façon baa in fase la façon batta fase la façon jaahil mooy ko xamul àttee fase dañ koy boole dañ koy def ñaari fase te kon bu beneen amee rek baatu sow ji dal di war moo tax nit ki waxtu woo xamee ne xelam nekk na ci fase dafa war a ànd ak xelam mu dem laaj te ji nañ koy waxe ne la jullit war a fase nga defee ko noonu waaye li ma wax ba ñuy fase du ñëw wax la nañ ko waxe dañuy dikk bu fekkee dañoo bëgg a delluwaat dañ la koy waxee neneen lu woyof bu ko defee boo ne ko dagan na mën ngeen a delloo yow yenu nga bàkkaar bu rëy boo xamul lu toll li ñuy dëkkee lépp ñu ngi ci mooy yaa ko gàddu kon yow li nga xam ne mooy sa defin wu mucc bu ñëwee wax ko li téere yi wax nekk lekk ko ne ko yow nag yaa xam na nga fase woon ak la nga waxoon ak la nga jublu woon ba ngay fase la nga yéene woon yaa ko xam waaye nii la téere yi tëral bu ko sëriñ si doon def daañu seetaat mbiri fasen ni mu demee la ñu laaj ko ba xam ko li doon farata ji mooy képp koo xam ne takk nga may nañ la soxna da nga war a dem jàngi mbiri fasen na mu demee boo bëggee di wéy ci lu dagan ba ba ngay dee parce que am nañ wolof yi wax te du fase waaye dafay laaj kaafaara yemale naa la ak sama yaay wala yemale naa la ak sama loxo yaay wala yemale naa la ku ma bokkal ndey bàyyi yooyu yëpp du fase du araam waaye nag yoon mayu la nga ne ko nii laal ko fekk kaafaara woo kaafaara xam ngeen ko boo kaafaara soxlul mayaat ndax fase amu fa loolu lañ tuddee zihaar ak ngiñ al ila ngiñ giñ naa la dootuma la jege wala duma la laalati dañ lay forcé waaye bu amee ñetti weer rek day jeex def nga lu xaraam bu ko defee nag léegi fase di lu ñuy war a seet di lu ñuy war a waaj di lu ñuy war a seetantal demoon nañ fi ci ndar ba jànkat yi daje ne léegi wala fii dañ naan may naa la sabar rek te xëy na fase dañoo xamul lu muy tekki waaye fase rek lañ ci jublu te ñu jàppee ko benn fase demoon nañ ba waxtaane loolu mujj ñu taxaw fenn mujj ñu ko conclure ñenn ñi ragal responsabilité ñenn ñi ne daal amul benn responsabilité ndax ñoom xamuñu am ñoo xam ne li ñu leen tontooy lu saxla moo di fasem jaahil kët boole woon nañ ko ci ñaari fase kon nag ku ne may naa la sa baati buñ ko wayee fale ba wayee fa ko dañ koy yóbbu ci ñaari fase rek ñeenteel bi mooy wax waxa ci gën a diis ñuy wax lu garaaw wax moo garaaw wax dana yóbbu nit safara wax dana yóbbu nit kaso ba wax dana yàq ñaari diggante wax dana sabab noone koo xam ne day wéy ba saa taxaw wax dana juumloo nit yóbbu nit ci erreur bu gën a rëy te yaa ko yaa lor nit kë wax bu nit ki waxul turu yàlla waxul lislaam mu wax li dagan te bañ a bari li dagan te bañ a bari wax li tax maanaam suufi yóne yi ragal ko ba boole sum maanaam noppi ak oslatu beru ci ponki tasawuf mooy xatar bi wax am nekk nañ ko ay yooni yoon sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama dana wax benn baat boo xam ne bis bi lu dul reeloo ñi mu nekkal yowmal xiyaam dana ci xalambaay ci xuri safara juróom-ñaar fukki nawet juróom-ñaar fukki at nit dana wax baat bu ko rey nit dana wax baat bu ko xuusloo ci xuri safara ay ati ati ati at wax benn muy fen wala muy dëgg wala muy mbóoreent baatu fen bi dana nekk benn bàkkaar bu ci xàq kenn ajuwul lori kenn ajuwu ci bu dee boo xam ne nag lori kenn aju na ci ni ci jëw te li ngay jëw du dëgg kooku moom la def buxtaan li ngay jëw ci bu dee dëgg mooy xiibatu la xiiba bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy rëy li muy bon bon li mu yóbbu yóbbu nit safara li muy sori nit yàlla lépp jëwa ko gën a garaaw dañ ne nit doy na sikk ci moom lu mu dégg nettali ko ndax boo déggee ci nit lu bon nga dem nettali ko mel nga ne ko ko waxoon nit ki day xam li ci këram wala mu wàcc ko di xam la ca kër jaambur luñ ko ca nettali te muy lu juunu mu sawar ca yàkkamti ko xolam bépp ca bu yàqoo bu yàqoo noonu la mel yàqu nag nit di tëb tëb xëy rek yàqu ndànk ndànk lay yàqu te du ko yëg te mu ngi yàqoo ci jataay yi mu ngi yàqoo ci àndandoo yi mu ngi yàqandoo yàqoo ci xarit yi yà bari na foo xam ne fa la nit di yàqoo te du ko yëg boo dee ànd ak nit koo xam ne day wax lu yoonam ñu fokk nga dugg ci boo ca duggee day mujj mu nekk sa melo ma yàlla baal suñu mbokk jigéen ñi waxoon nañ ko ñëw ci raw lu tax dañoo ëpp jot ku gën a bari jot gën a bari jotaay yi mbooloo rek moo gën a gaar gaar lu jëm ci wax lu yoonam nekkul ndax nit néew na bu mu wéetee du jëw moom dong bu toog du jëw jafe na bu fekkente ne nag dañu ne lekkal lu la neex da nga jëfe lu la neex maanaam boo lekkee lu xaraam lu xaraam moom te mu ngi sa biir ci lu bon rek la lay xëyee boo lekkee lu dagan ci lu dagan rek la lay xëyee àndal ak ku la soob da nga mel ne moom nit ki war di seet lu ñuy àndal wax nag seytaane daf cee laxasu laxasu bu metti ndax am na ñoo xam ne seen diggante nit dana am lu ci nekk am na jubóowuñu bu ko defee ki ñëw ci yow waxal ko lu bon nga dal di cay bët boo waxul woon dara waaye neex gi mu la neex rek ñu ci banaaru laay la lu dul lu public loo xam ne nëbbatuñ ko nëbbootul ñëpp a koy wax loolu moom moo gën a yolam ak nit ki nga xam ne dafa def boppam masxara maanaam nit la kuy pour reeloo nit ñi rek mu tàmm na ko ba nga xam ne fu mu toll day jëf lu reelu di wax lu reelu reelu loo boppam kooku moom dañ ne amatul xaq ci war ma lu dul nga jàll kaañ bi nga xam ne li ngay wax si moom du ko naqari ndax dafa génn ci charte jëw jëw chartam mooy maanaam taarifam définition am mooy nga wax ci nit loo xam ne bu ko déggoon du ko neex donte dafa bari diine bari julli lool te daf ko nëbb ndax wattandi ko njistal boo ko waxee jëw nga ko boo ko waxee jëw nga ko ndax bëggul boo ko waxoon mu teew du ko neex am na ci tagg yoo xam ne boo ko waxee gannaaw nit ki jëw la bu fekkee ne lu mu bëggul ku ko wax la bu dee koo xam ne tagg du ko wàññi dara li nga waxee woon tagg nit ñi ñaare